bàyyikoo ci sëriñ bi ak mboolem waa Touba ci kanam gépp ko googu nag ñu koy tàmbalee ci ki fi nekk sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha moom mi nga xam ne ba Touba ca kanam tàmbalee ba léegi ñu ngi ko ànd ak ñoom lépp lu Touba ca kanam yëkkati mu na ci itteem ak pastéefam ak joxe ca boppam ba mu jeex tàkk ba ci lii ñu doon def ginnaaw buñ ko amee buñ ko dee def ci ndigalam moonu ci jiitu jiitañ ndax yàlla dogal na démb mu doon génn di dem njaareem waaye fii la jaar ñaan fi tàmbali liggéey bi doo ko dem kooku nag loolu nag mëneesu ko weesu liggéey booy tàmbali sëñ Tuubaa ki fi nekk sëñ Tuubaa ñëw tàmbalil ko nag yaakaar naa xel mën na cee dal lool xolin mën na cee sedd ndax yaakaar nañ liñ ci yéene incha allah waral ne daañ ko ci am kon cant gi moom Cheikh Mamadou Mountakha lañ ciy jiital waaye nag noonu lañ ciy sant mbooleem njaboot sëñ Tuubaa gépp di sant nag mbooleem taalib yi yëpp ndax kenn ku nekk bisub tey gii def nga ci sa itte def ci sa jom def ci sa pasteef ba bis bi mel ni mu mel bañ xëyee ba léegi nit ñi noppaluwuñu bi bëccëg jotee dem na ba mbusoo bi sa ñëw bu sa ñoom daanaka mënatuñoo dox waaye mbooloo mi waxtu woo xoolee ci kanam da day mujj mel ni ay malaaka ba ni jant bi sooyee ba ni ñuy dulli timis kenn yëkkiwu sag laxasaay kenn jugut ca la nga nekkoon kenn ku ne yaa ngi fas yéene taxaw ci nu liggéey bi sottee ba mel ni ko sëñ bi bëggee loolu nag kon sëriñ bi gis na ko te itam am na ci cant te mu ngi leen ci sant bu baax a baax li leen bàyyeeg sëñ Tuubaa mi nga xam ne nag lu ko waaye jëfal su pay ga ñëwee da nga xeeb jëf-jëf yàlla na nu nangul jëf ji ci bàkki sëñ Tuubaa ndax xëyum tey mii kat xëy la moo xam ne waxuma la nitu àddina bëggoon ko waaye nitu yàlla ku ko bëggoon ku dul sëñ Tuubaa ku ko bëggoon ku da nga xeeb sag may lii moom sëñ Tuubaa dong ko mën a mbooloo mu xëy laaju ñu ñam laaju ñu ndox ne ca kanam di liggéey soxlawuñ ca pay lu dul ëllëg sëñ Tuubaa doon ko am kon ñun ñëpp li ñuy maase def mooy yeesalaa sunu jaayante sëñ Tuubaa te gën koo jox sunu bopp te xam ne si Cheikh Mouhamadou Moustapha waxoon ne lu mu ma dig lu ma wax tey ma teg saa bët la ma dig ëllëg te gisaguma ko laa gën a gëm kon bis bés seen ñu koy ñu ci gën a teg sunu bët ndax pàkk bii ba mu fii dikk fekk wax ne lenn fekk fi lu dul windew nag muy pàkk boobu kon waaye ba mu fi ne jàng la wax ne mbooleem lu mu doon sàkku wóor na ko ne boobam defal na ko te mu ngi ñëw te bët dana ci tegu tey nag yaakaar naa bët tege na ci kon ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe Sëñ Tuubaa war nañoo gën yokk suñu pëstéef ak suñu itte ci dëkkam bii nag nga xam ne mës ta bëgg ci àddina lu dul moom waaye nag ñu ciy sant yàlla noonu waa Tuubaa ci kanam bi nu yàlla defalee taw tawfeex ak ndimbal ci nuy jéem liggéey Sëñ Tuubaa ndax moom ak bëggam am na ba noppi ndax dafa wax ne lépp lu mu bind di ko ñaan tegginal la ci jublu waaye suñ boobam da koy jox ba noppi doo ko ñaan ndax ndax moom rus naa ñaan yàlla lu ma ko dun may da koo may ba noppi mu doog a ñaan kon na ñu dëkk bi moom fu mu bëgg mu àgg fa dana fa àgg yàlla nañ bokk ci ña ko fa yàggale loolu rek mooy li am solo kon Touba ci kanam seen xol sedd na guy yu ñu ngi sant ñëpp ñu wuy si woon pay gi moom sëñ Touba dong nga ko am te ku ne bu ak cher dana la fay loo xam ne dana seet sa xol ba mel na jëfoo woon ba loo jëfoon da nga koy xeeb loolu moom nattabli wuñ ko ndax xëyum tey mi moom gën na noo rafet loo njort gën naa dalal suñu xel gën naa dolli ko sunu yaakaar sëñ Touba gën nañoo rafetloo njort yi ci ne liggéey bi sëriñ Tuubaa nangu na ko kon ak cant rek lan amal mbooloo bi ci turu sëriñ bi waaye cant googu yi deesu ci ñàkk mën a tudd ñoo xam ne dañoo ànd mun liggéey bi bañ ko tàmbalee ba tey di ci jàpp njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ lu Fallu Fall sëñ Modou Moussa Fall muy waa ko sëñ Modou Amin te fi lañ yenn ak seen mbooloo seen i taalibe bi ak seen i bokk kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoom itam di leen di ci tur sëriñ Habib wax ne sëñ bi nee na liñ ci def di gis na ko bàyyi na leen sëñ Touba yàlla na leen fay lu kawe seen njort ba ci ay waayam baax noonu yi la ñuy sant mboolem ñi nga xam ne teew nañ fi jàpp ci bis bi lu mel ne waa daayira Xidmatul Xaadim boobu ñu doon tudd di woyof yi ñoom bañ tàmbalee liggéey ba tey ñoom ñun ñoo ko ànd ñoom itam ba tey ba seen loxosaay ba léegi la leen sëñ bi ñaanal ñu yeewu ngir seen liggéey ya ñu war a liggéey lu mel ne waa Touba Verte gi nga xam ne itam lu mel ni ñoo ko njëkk taxawal ci dëkk bi duñ def lu ñu di leen fàtte ñoom itam seen itte seen pëstéef jëmoon na ci bañ njëkkoon koo taxawal ba sonnoon ci suñu doomam dogal xëy na nañ ko yéenee woon euh, ak géwu ni waaye Touba ca kanam ñëw fas yéenee àggale yéene jooju fas yéene ko ànd nañu ñoom itam ñu ñëwoon waxtaan noonu ak ñun nu ànd ne nañ ko fas ko yéene yéen àggale seen yéene ànd ko moom lan waxoon ni def nañ ko ñi ngi ànd noonu liggéey boobu ba léegi ñoom itam ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm ñi nga xam ne itam joxe nañ fi ay garab ñëpp tuddoon nañ leen ci image yi weesu xañ na ci jataay yeneen yi weesu waaye euh, jataay bi dafa xaw a xat te it mi ngi bëgg a yàgg moo tax waaw waaw waaw maa wax mati ñoom itam ñëw nañu fi maa wax mati andi nañu fi ndox mi nga xam ne moom lañ doon loosee ñoom ngi leen sant bu baax waaw mu xaddimatu xin ma it yeble nañ fi fi lañ yenn ñoom itam mu ni kuréel yi ci dëkk bi yëpp daal daa yooyu daa yooyu yi daa yooyu loolu yooyu yëpp ñoom itam ñoom ñun ñoo ànd liggéey bi kon xëy na lim moom ku ko def ni ñu koy wax da nga fàtte rawatina loo xam ne mm-hmm. waajaluñ ko woon ne kon dañuy bind ku fi ñëw mm-hmm. ngàbb kay yu di leen tudd benn par benn mm-hmm. waaye kun tudd ci daal nga xam ne yéene nañ laa sant te sëñ Tuubaa nga doon liggéeyal te moo nu njëkk a gis liggéey bi moo nu gën a gis liggéey bi te moom moo am moo am pay soxna yi moom itam ñoom it ñi ngi leen sant bu baax a baax ndax ñoom Touba Ca Kanam daanaka booy seet jigéen ñi moom ñoo ci mën góor ñi ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp soxna yi moom ay jàmbaar yoo xam ne tey jii booy seet mbooloo bi day mel ne jigéen ñëpp te booy seet sax day mel ne ñoo gën a pësseew fii lañ nekk ba liggéey bi mag ba Touba Ca Kanam tàmbalee ba tey luñ mos a woote noonu lañ ciy doxee kon ñoom itam ñu ngi leen sant bu baax cant gi daal bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ góor bàyyiwuñ jigéen bàyyiwuñ mag bàyyiwuñ ndaw mm-hmm. képp ku fi teew daal ak ko amoon yéene yi teew sax ñu ngi lay sant di sant waa Touba ci kanam ak fu ñu mën a ne ci àddina bi ndax ñi ne ci diaspora bi te bokk ci Touba ci kanam it seen seen bokk ñun liggéey waxtu ne ñu ngi te lu ñuy laaj kenn du leen ci man diaspora bi bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ mel ni réew xëy na lu mu ko doy ko man waaye bàyyiwuñu fenn kon daal li mboolem ko jàpp ci liggéey bi ak nag jàppe yëg nañ ko gis nañ ko ñu ngi lay sant bu baax di sant waa PRS bi nga xam ne itam ñoom ñoo jàkk ñoo jàkkaarloo ñun ñoom itam lépp lu ñuy def ci Touba ca kanam ñu ànd ko ñun ñoom itam ñu ngi leen sant xëy na ko mel ne suñu Fallou Ndiaye mi gën a jekku xam yi fi teew da mën leen a lim waaye ñun xëy na duñu leen mën a lim waaye presse bi ñu fi ñëw ñëpp gis nañ leen site internet yeeg rajo yeeg télé yeeg yëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax sant ministère Fofana Abdou Karim Fofana yónnee woon na ci suba ay gaaw moom itam jàpp ci bisu lu mat ju ñeenti téeméer ñoom itam ñu ngi koy sant bu baax te du gërëm yi nag waa Touba ci kanam di wax Serigne gannaaw buñ feddalee sunu laxasaay sunu jaayante sëñ Tuubaa fas yéene ànd ak yow liggéey bi mm. ñi ngi lay xamal ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ngi ànd ak nun liggéey bi di waa Tuubaa ci kanam te nga doxaleen suñu diggante ak ñoom de wa maa ngi lay seeral ne ñoom nit ñu am pasif lañ nit ñu bëgg sëñ Tuubaa lañ nit ñu ko nangoo liggéey lañ ñun ñii ne ci seen kanam di joñ ñoom waxtu wu ne guddee bëccëg de xam nañ ne ñii moom sëñ Tuubaa dong lañ itteel xam nañ ne Tuubaa jëm ci kanam dong moo lañ itteel loolu sëñ bi ñu ngi la koy seeral di ñaan nga ñaanal leen donte nag mënee su ta lim ñëpp waaye ku mel ne fataay gi moom mënee su ko cee ñàkk tudd rawatina taxawaayu bis bii ndax njëmbat lii moom daj na ci loo xam ne ñun ñëpp maas nañ man koo seere ci ne lim ci daj lenn lu ko lu ko nit di daj lu sëñ Tuubaa déw la ñuy wax sonn na ci lool gannaaw yàlla bu bis bii amee taxaw mel nii gannaaw yàlla ab taxawaayam ak ku mel ne Moustapha Dieng ñoo xam ne moom la xawoon sësale ko ci boppam jiitaloon ko muy coordonné liggéey bi ñoom ñaar moom mënee su leen ñàkk tudd donte ñi fi nekk ñëpp nag ay jàmbaar la ku ne def na ci ba def ci loo xam ne lam ci def digg ma sëñ Tuubaa rek la sëñ Tuubaa moom gis na lépp xam na lépp yàlla leen fay lu koy suñu seen jox li ci des nag soññee bu gàtt lay doon mooy ñu gën a takk suñuy laxasaay te gën a jëm gëm kanam suñ suñ suñ jëg sëñ Tuubaa ñu xam ne sëñ bi moom képp ku koy liggéeyal te muy dëgg ci yow jëwul ngay geesu jëwul ngay tiit jëwul ngay jàq lépp lu ndax am dox sa diggante liggéey bi sëñ bay dox sa diggante lool loolu kon nañ dalal xel sunum xel te gën a fedd suñuy laxasaay di gën a woo taalibe yi Sëñ Tuubaa yëpp yi nga xam ne Tuubaa ci kanam daaw toppoo ñu lu liggéey Sëñ Tuubaa ci dëkk bi dëkk bii di Tuubaa it day dëkk boo xam ne sëriñ bi lu ma ci dikkaat li suñu sony wax doy na mhm. lu ma ciy wax lenn lu gàtt rek dafa am ay jamono bi mu nekkee njeewe ci waa kër ñi fa nekkoon ku ñuy wax soxna Mbéye Diop mooy way jiw soxna ami seexum Sëñ Tuubaa moom soxna Mbéye moom am ab mbokkam moo xam ne dafa génn ab ab wëllawee bu génn àddina doonoon ab lawbe mu ñëw ne sëñ bi man de dama am sama xarit bu lawbe boo xam ne dafa faatu ba bëgg nga ñaanal ko sëñ ne ko fu mu ko Touba mu ne ko fuñ ko denc mu ne ko Touba sëñ bi ne ko ah kon da jëwun ñaanal Touba de moom suuf sa kuñu fa kuñu fa suul nga dem àjjana soo soo soo suuf moom noppi naa ci la ma fa daloon lépp defal na ma ko ku fa kuñu fa suul nga dem àjjana kuñu kuñu suul Touba man jël suuf si nga indi woon di bëgg ñaanal ko mën nga koo delloo jëw mm. ginnaaw Touba lañ ko suul rek la nga ci bëgg da nga ko caam suñu borom defal na nga ko suuf sa te du ca toxoo kon nag loolu doy na si biir ñun ñi ci mm-hmm. loo xam ne bu ñu diggee ci suuf suuf si géwél ñi mm-hmm. suuf si xam ne woon lu naq naqari sëñ Touba dañ fee ne woon di ko a dundal di ci ko ko jéem a teewal mm-hmm. ndax bu ëllëgee bu ñu duggee ci nag gën a farlu gën cee def suñu itte xam naa maa ngi jégalu ndax jotaay baa ngi gën a bëgg a yàgg te li wax te li ma toon a wax daanaka ñu jiitu wax nañ ko waaw xam naa itam ñu soññee dafa mel ni soññee bi moom gaa ñi duñ ci doyal waaye ñu gën a takku ci ni ma ko sëñ Abdou Fara waxee léegi ci weer ñaar téeméer ñu gën ko bàyyi xel ndax lu yomb la kenn ko nekk bis bu set li nga jënd ci yi di ko wootee képp dana ëpp ñaar téeméer wala nga di ko def ay ci ay connexion bis set da nga xam ne boo seetoon ci bis ba weer ñaar téeméer la nga ciy génnee fukki dërëm sax du ko mat juróom-benn tuuti lay doon loolu nag kenn ku ne da nga xëy yàqulu ko moom kon loolu nañ ko jox sëñ Tuubaa te dëkkam bii lépp luñ ko ci defal nun sëñ Tuubaa lañ ko defal danañ ci am waaye nag danañ ci amaat loo xam ne nun ñii ci kaw suuf si ñoo koy jariñoowaat hmm. kon war nañ cee sonn ndax bu du dawee it ab dëkk boo ko dëkkoon mbadaxoon it waa waa fexe ba mbadaxoon dàq ci dëkk yi hmm. rawatina ku dëkk Tuubaa kon nag war nañoo gën a yeesal suñuy pëstéef képp ku dëkk Touba moom waroo am sañ-sañu di bañ a joxe weer ñaar téeméer mm-hmm. ku dëkk Touba moom da nga ko waree mm-hmm. tawat yi bari na ndox mi ni ko suñu soxna bi doon waxe taataay ñëpp gis nañ ko mm-hmm. lëndëm gi ñëpp gis nañ yoon yi ñëpp gis nañ ndox ñànkem ndox mi ak ndox mu naqar mi nga xam ne ñu ngi koy jàmbat ñëpp gis nañ ak ñàkk a doy loolu nag da kenn du na ko saafara lu ñun taalibe Sëñ Tuubaa yi ñoo ko mën dindi suñu bopp te mën nañ ko Sëñ Tuubaa jox nañu luñ ko dindee nañ te ànd te dajale liñ am te def ko ci loolu jug fii ndax mën naa am waaw loolu itam xam naa solution bi junjoon na ko muy Tuubaa ci kanam génnee nañ cent cinquante millions yoo xam ne ci lañ ko signé def cinquante millions yenn yi ci ay làmp lañ ko jëmee yoo xam ne mbooleem piil yi tëkkut ndax fii bu ñu seetee am na piil yu ñuy jàkkaarloo yoo xam ne tëkkuñu mm-hmm. loolu Touba Ca Kanam jënd na ci loo xam ne toll na ci cinquante millions ci ay lamp ngir bëgg ko cee def mm-hmm. bala ñoo màggal incha allah mm-hmm. am na cinquante millions yoo xam ci ndox mi lañ koy def muy naan mi loolu bëgg démb jënd nañ ci ay ne fa su Baxdaad ak bu Madiyana bu yàqoon jëndal nañ ci ñaari pompe am na itam pompe ndox mi itam am na ñaari pompe yu ñu jënd yoo xam ne tey jii lay doo agsi ngir pompe ndox mi ci dëkk bi taataay ngir manque leen loolu itam pamp yooyu jënd nañ ko mu ngi toll ci huit millions sept cent cinquante mille mm-hmm. loolu yi jënd nañ ko te fas nañ yéene cinquante mille yi ñu waxoon dañ ko ci def insha allahu taala fas nañ ko ci yéene def ba mu jeex danañ ci def cinquante millions ci ndoxum naan yi def cinquante millions ci mbënn mi insha allahu taala bala ñoo màggal loolu moom jaayante nañ ko sëñ te fas nañ ko yéene def loolu yi nag na ñëpp sa sa sa sa saw ñaq mooy ñaar téeméer yi nga ci jox ci lañ koy defee li wala fii di wax nag ku seetaan ñeetaan mbirum mm-hmm. sëñ Tuubaa moom ku ci seetaan it boo liggéey da ngay ñeetaan ndax daa waxoon ne man de du ma nax kenn waaye kenn mënu maa nax mm-hmm. képp ku ñëw ci man jébbulu damay jën bi fab gaal tëj ko mm-hmm. waaw waaw sëriñ bi daa waxoon ne man de du ma nax kenn waaye kenn mënu maa nax ndax ku jébbulu ku ne damay fab gaal wut xomb xombe gaal ga fab ceebi ja téye bët fab bënn gaal ga fab sa ceebi nag téye doo ko man a yootaan doo ko mën a ubbi di xool loo ma jox ma tàbbale la ca gaal ga boo liggéey kenn ku ne ma ma jëbbal sa gaal ak sa ceebi ne la ubbil boo ubbee loo cee defoon loo ca fekk yaa ko defoon loo ca fekkut bul ma sikk sikk sa bopp ndax yaa ko ci defut mhm. kon li ëpp solo ci àddina mooy ñaqal sëñ Tuubaa mas am guddi goo xam sëñ bi daa toog ci am ñëwem mu jékki-jékki génn am koy wax suñu amati bi ku mu fekk ci bunt bi jox ko satale gi waxu ko sax daa koo jox satale gi rek topp ci moom ndax mag ñi dañ daa def bunt bu ne dana dana am ko fa fanaan mm. ndax xamuñ fu muy génne wuti ah, ndek mu ab àll suñu amati bi topp ci moom topp ci moom ci aw mel yoo xam ne ma nga ca ginnaaw dëkk ba sëñ bi di aw mel yi dugg ci aw mel di ko ba yàgg mu taxaw daal ne ana kii suñu amati bi mu ne ko xanaa aw mel yi kenn suulu ñu fi kenn ku ma mës a liggéeyal wala ku mës a liggéeyal ku ma a liggéeyal nekku fi amel yi xanaa kenn ku ma mës a liggéeyal wala ku mës a liggéeyal ku ma mës a liggéeyal nekku fi wax ko ba bi ñett yoon ne xanaa amel yi kenn ku ma mës a liggéeyal wala a liggéeyal ku ma mës a Ba ne ko ah a liggéeyal nekku fi ku mës liggéeyal ndax kon seen coono bii ñu nekkee wala seen yuux yi ba tax mënatumaa nekk seen kër duñ ko nekk waaye nag bi ma fi tegee sama tànk ñoom ñëpp jéggal nañ leen armeel yooyu ci suba sax bañ ko laajee fu lu ñu fa ab jullit ña fa nekk ñëpp ay yéefar lañ duñu ay jullit bañ xam bañ gëstoo ba xam armeel yam doon dañ ne musuñ faa suul ab jullit armeel la woon te ba mu fa tegee tànkam lañ jébbali jéggal yéefar yëpp te te te lam laaj ne ndax ku ma mës a liggéeyal dafay niwul wala ku mës a liggéeyal ku mës a liggéeyal kon ko ne waa ngaa xam ne ku ko mës a liggéeyal doo am njàq ëllëg doo ko am tey kon nañ sax ci liggéeyal suñ tubaab moon amal njëriñ tey ëllëg